président de la république présidence du Conseil européen Colobane ak Sane dëkk Rue 02 Frix Vallée Victorie Gorée présidence de la République palais de la République résidence du président de la République bi nga xam ne mooy demeure historique située à la quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 bi sama dépal xaw naa yàgg la ilaha illallah mu nekk la résidence officielle du gouverneur général Abdou Rahmane Tall Léopold Sédar Senghor Dia 1964 Abdou 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 ñam ñamaat fi nu xaaran ba xam kii woote bëgg jox président de la République kooku la waroon fa lay woote salaamaaleykum mbay am na cuuraay bant bu génn boo xam ni moo raw jigéen ci néeg way neex lool la def ndax day jilli allo <laughs> day jilli ca kaw saf sap boole koog nag ànd ak oui allô euh, Racine ça va oui ça va kooku joxal tur beeg sant bi je suis Cheikh Omar Anne Cheikh Omar Anne Cheikh Omar Anne le ministre euh, de l'enseignement supérieur ah Cheikh Omar Anne ministre oui ça va ba borom Fuuta ça va oui oui oui ça va ñu lay ziar ba yaa ngi am jàmm oui maa ngi am jàmm bu baax yow nag sa woote ci biir palais ci waxtu wi ñu toll nii nii. bon sama woote euh, li ci gën a ëpp mooy euh, soxla woon naa euh, président de la république. non il est occupé nag dafa jàpp nii. ah dafa xaw jàpp en réunion de en réunion de zoom. moo la soxla comme ça dagg li muy def pour il est en réunion avec les chefs d' état d' zoom zoom xam nga zoom. ok ok oui je comprends yooyu noonu ñëpp. oui compris j'ai compris. bon en fait. dama am lu ma bëggoon euh, ñu euh, euh, ko ko. man mi loolu la ma fi tegee. kon mu ngi noonu. donc bu ma ko merci merci merci donc gis na ni ma redressé li nga xam ni moom mooy université. université mel. defaraat ko vraiment ba ñëpp ñi nga xam ni ñooy étudiants yi ak étudiantes yi gis nañ ci seen bopp bu baax a baax a baax. Hmm. mais donc dama bëgg alal ji nga xam ne ñu ngi koy def ci université bi. ñu ci sóoraale aussi lekku étudiant yi. ah looloo indi ak étudiants yi parce que. oui oui metti yëpp looloo koy indi de. effectivement. parce que loolu nag euh, dama ni sama premier combat ci foofu la euh, war a posé wu. Ah, di lekk ba suur di lekk ba suur di naan ba mandi am euh, bourse bu baax boo xam ni. te duñ te fay dara. te duñ fay dara vraiment. loolu boo ko defee moom du sama yàlla <laughs> nga sànni xeer ak lacrymogène <laughs> lacrymogène yi juróomi dinañ sakkan. waaw loolu la laa xalaat parce que bi ma président joxe li li nga xam ni moom mooy UCAD li ma njëkk a xalaat dama bon première chose mooy. étudiant bi na lekk ba suux. mooy yoon li ñuy jëli ñoom ñooy avenir u pays bi. effectivement et puis réew bu amul njàng réew ma du dox. ah université Gaston Berger ba ca Ndar mbaa yaa ngi bàyyi xel ñoom it na ñoom xat gi lay na rek nu baare tali ba Gaston Berger maa ngi waxtaan ak euh, ñoom d'abord maa ngi waxtaan ak ñoom parce que li ma bëgg dafa ma bëgg mu law Gaston Berger dem ba université de Bambey partout au Sénégal aussi ah. parce que li wokku ñi xóori ñi donc ah. daal dama bëgg président mu ah. benn enveloppe bu ma préparel de parce que bi ma defee devis bi euh, juste mi ma dikk euh, benn vingt milliards et poussière mbaa bàyyi waale nga xel mesure barrière yi ci école yi teg ci bunt yi fu ñuy raxasoo ak ay gel ñuy def sécurité ba ak teg ko masque yi. effectivement fan yii sax dama wut ay pollu mbalit euh, nga xam ni euh, dama ko jël teg ko ci porte bi. pour masque bu ñu takk ñu jël masque boobu def ci mbalit bi takkaat beneen masque aussi ah. wut naa ay lim ci satala wut ab lim ci ci ci gel alcoolique bi donc yooyu yëpp pour rek euh, redressé waat euh, li nga xam ni moom mooy euh, université bi. ba dajaloo bi ci biir chambre yi nag. waaw dajaloo bi nag ñu ngi ci wax parce que chambre bu ne bi ma bi may soog a ñëw chambre bu ci ne dama fay fekk à dix personnes léegi léegi dama fexe ba sembre bu ci nekk euh, euh, euh, ñu ñu jéem def ko trois personnes minimum bu ko defee kenn ku ci ne nooyi nekk jàng sa jàng et puis doo am problème ak sama morom. Ah. oui. ah loolu de la xewal la xewal la. dernier kàddu gi nga xam ne bi bu président ñëwee rek dama naan ko ko riil wax ko. sama dernier kàddu mooy mu jox ma beneen financement boo xam ne dinaa ci mën a réaliser loolu yëpp pour élèves yi mën a nekk à l'aise étudiantes yi mën a nekk à l'aise étudiants yi a nekk am bu ko defee ñu moytu mesure barrières yi feebar feebar bi mën fi jóg bu ko defee ñu nekk ci jàmm bu baax a baax. ayca financement a nga taxaw faram fàcce la nga fi defoon ak loolu xam naa ko mais xam naa ko. waaw waaw waaw dama lay xam naa ko et puis bu fàtte njum dama lay xamal parce que aussi bëgg naa fa def lampe yoo xam ne si euh, day tàkk sax ba cëg. waaw kon neex na loolu yàqum courant la. wuy ma bootu correspondant peut être. non pardon Racine moo deexeel sa langage. moo deexeel sa langage non moo deexeel sa langage. Ah man damay liggéey. man ma yàq damay liggéey.